njaboot goo xam ne duñu ñu ndox mi la yàlla dénk mu nekk ci sa ndigg danga koy sàmm bul ko génnee lu dul da takk soxna xale bu jigéen bi ci toll moom itam àdduna ubbeeku ci kanam xeetu col yu rafet yi xeetu modd yi xeetu coiffure yi xeetu parfum yi lu nekk ubbeeku ci sa kanam xeetu ay fon lu nekk ñu la koy xoymat ba tax nga foye sa bopp jébbal ko koo xam ne waroo ko ko woon a jébbal ne la wóor ne yaa ngi ñàkk loo xam ne doo ko mën a dabaatal mukk moo tax parent yi am nañu responsabilité bu rëy rëy ci yar njaboot sujet yi nga xam ne dañ koy def tabu yenn saa yi doo nangoo toog waxtaan ci sa njaboot surtout yaay nga xam ne fi mu mën a àgg ak doom bu jigéen papa mënu fa àgg ak moom yaay fi mu mën a àgg ak doomam bu jigéen papa mënu fa àgg ak moom papa fi mu mën a àgg ak doomam bu góor yaay mënu fa àgg ak moom ndax yàlla moo bind noonu doomu aadama kon responsabilité bu rëy la ñu wax ak njaboot gi sensibiliser leen xamal leen àdduna ne leen bu ñu foyee seen bopp ku ci bëgg taaw bu baax da ngay téye ndox mi la yàlla dénk ba keroog ngay dégg alxayri kon maa ngi ñaan suñu doom yi maa ngi ñaan suñu jarbaat yi bu leen topp modd bi bu leen topp yi xew ci jamono yi rafet yi kenn mënu koo jeexal kenn bañu ko lu rafet jullit a ko moom قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيب